taxaw place de la nation di def discours ju koy saga nday mu nek ci ben meeting coalition di ko wax ay wax yu ñaaw ma dégg muy wax ni li impressioné wuma mais mais koku ku xalat ni dinañ la bayyi Sénégal nga koy def da ngay nax sa bop parce que rew mo xamanteni ñi fi jitu won biñu waré taxaw assumer sen ay responsabilité dañ ko defoon bañu mëna tok a tay am liberté ku nekk wax li la neex waruñoo am dono loolu waruñoo mujjee loolu bu sobi di réer ba Sénégal kenn dootu mën a waxati li la neex képp ku bëgg wax Sénégal li la neex taxawal wax ko fi mu la neexee ak nu la neexee te bul tooñ c'est ça le Sénégal mais un Sénégal on essaie d'appeler les gens mais je vous demande tout de suite de déchanter parce que ça n'arrivera pas dans ce pays alors ci walu loi bi nga xamanteni indi ko gis ni li ci attention nous cristalliser débat modification L28 tiré 3 la loi bi gëna te suñ ci waxul xañ na nit ñi duñu retenir quintessence bi duñu jël liy solo loi bi dis débat yi yëpp dafa tourner autour d'un seul point pratiquement ci suba ba léegi te loolu dafay xañ na xaw a firndeel tuuti li ma doon wax avant may yegg ci contexte politique bi souvent bu dara amee mbir yi benn point la ñuy dem nit ñi ci benn point la ñuy dem li leen intéressé mi ngi mel ni discours président de la république son excellence Macky Sall bi mu mujjee def bi muy annoncé ni du présenté wu li wax bi di riche riche li analyse bi di profonde profonde li perspective yi di dégagé wu dégagé wu retenir muy non candidature bi xooluñu leneen nit ñi xooluñu leneen dégluwuñu leneen mais tey les avancées yi ñu noté ci consensus fort yi ñu am ci 12 points nañ ko fàttali cité point yi tay waxtan bi président indi mom mo jur ñi warona dem dagaan batu askan yi pour bëgg président de la république ñu wàññi parrainage bi mu jugee 0,8 à 1 nek cent 0,6 à 0,8 waxtan bi mo jur mu nek un parrainage optionnel manam Tan sa bu la neex la léegi bu la neexee mën nga dem nga tànn ni da ngay dem dagaan parrainage bi ci cette à raison minimum de 2000 mille ñaari junni électeurs par région wala nga ñëw fii ci assemblée nationale boo amee 8% pour des députés mu doy sëkk doo dem wërati su la huit pour cent parrainé nga mun a nekk candidat waxtaan boobu moo des chefs d'exécutifs territoriaux muy président de conseil départemental wala maire mais boo ci amee vingt pour cent mu doy sëkk doo soxlaati dem di wër parrainage au niveau des citoyens waxtaan boobu moo jur ñu ni ginnaaw affaire politique warul doon affaire xaalis ndax nit mën naa war a bëgg a def politique jiite nit ñi te du nduru ni wala dafay indi simplement nit ku riche déedéet ñu ni léegi caution bi dañ koy plafonné

te code bi waxoon ko dañ lay mën a daal di tabaat nga bokk ci biir waaye gis nañ ni poñ boobu kese mooy li ñu waxtaanee ci suba ak léegi damay profité nag j'anticipe peut-être am na yeneen argument yu may nar a indi bu ñu yegsee ci amandement bu ñu dugaloon démb en commission ma am lu ma ci waxoon dinaa ko leeralaat tey système électoral dafa am cohérence si subaak léegi maa ngi dégg ñuy wax ni L57 bu code électoral biñ ci yokkee terme électeur en 2018 c'était pour dindi benn candidat pour que mu bañ a participer ci élection yi ñu wax ni léegi nañ ko ci dugalaat pour que ñëpp mën a bañ a pour que ñëpp mën a bokk ci ay élection may leeral lan moo taxoon réforme boobu amoon en 2018 amul ben xeetu élection au Sénégal je dis bien amul ben xeetu élection au Sénégal boo xam ni su fekkente ni doo électeur dañ la ciy mën a fal boo demee ci élection maire ku dul électeur mënul nekk maire boo demee ci élection législative yu député yi ku électeur mënul nekk député boo delloo ginnaaw ci élection départementale ku dul électeur mënoo nekk conseiller le président de conseil départemental te LO 157 L 245 et L 280 du code électoral nous ñoo prévoir bu nous nañ Nous que ñu que ni képp ku participer et lolu, cela va de soi question de logique Si su ne ni pas ci feuille de match nous dugg ci pas dugg terrain alors les bu fait ni anomalie vous corrigé nañ en 2018 ni électeurs, électeur munoo candidats candidat à l'élection présidentielle au contraire nous, candidats à l'élection am mais avancez-le, parce que nous uniformiser les conditions d'éligibilité à tous les types d'élections au Sénégal L'olmoi mooy solos li L57 modification tabiki en 2018 nous avons léegi ci li jëm ci leeral xam benn point la bu may aborder très rapidement avant de venir aux réponses parce que monsieur le président mesdames messieurs les honorables députés occasion yu mel yombul te honneur le, privilège le, nga jàkkaarloo ak ñi teewal askan bi teewal réew mi yépp fii ci biir assemblée nationale kon dafay baax ci tontu yi ngeen ñu ci laaj yi ngeen ñu laaj jëmale ko ci gouvernement bi bu ñuy tontu ñu fàttali ci yenn yi maa ngi dégg ci suba ak léegi ñuy wax ci wàllu dissolution parti politique bi tuddoon Pastef alors damay d'abord rappeler lan mooy parti politique ak lan moo tax a jóg parti politique ak lan moo tënk parti politique ak li ko tënk bu ci tekkee ko lan moo ko ci mën a fekk parti politique association la du leneen mbootaay yi nit ñi di former ci yeneen domaine moo parti politique benn la boo demee ci code bu ñuy code des obligations civiles et commerciales La sax code des obligations civiles et commerciales constitution moo ko njëkk a posé principe dans son article 4 boo ñëwee ci code des obligations civiles et commerciales nga dem article 812 à 814 mu leeral la ni parti politique association la nga jóge fa nga ñëw ci loi bu 1981 qui régir parti politique yi mu leeral la ni association la et obligatoirement obligatoirement boo boolee textes yooyu dañ lay wax ni parti politique sous la forme d'association sénégalaise rek lañ ko mën a tëggee am beneen loi bu 1989 bu indi ay coppite ci loi bu njëkk boobu di loi wu 1981 loi yooyu yëpp boo leen boolee li ñu wax mooy parti politique li ko tax Dagan jóg mooy askan wi waye yar yar ñi nga xamanteni ñom ñoy ay membre ak ay sympathisant parti politique li ko tax a moy yar mais parti politique taxu ko jóg yak taxu ko jóg détourner taxu ko jóg rerelater taxu ko jóg yak té lolu motax charte yoyu teunk parti politique wax ci bu lèr nañ ni parti politique li lañu tek ci ndodam at mu ne am na lu teg ci ndoddam ci lii ci ni muy doxee am na lu teg ndoddam ci lii même ay statuts dañ koy déposer d' abord il faut une déclaration et un enregistrement buy juddu au niveau du ministère il faut que mu am ay statut statut yooyu même buñ koy modifier bu ko ministre de l' intérieur refusé bu fekkente ni doxaloo rejet wu ministre de l' intérieur bu accepté wul ay modification statut statut yooyu mais loolu motif de dissolution la su dee ministre de l'intérieur accepté wul modification wu parti politique motif de dissolution la bis bu jëmmi jamono nag bis bu ñu demee ba jëmmi jamono ngeen waxtaan ba d'accordaat ci leneen mu yéen ñi fi teewal ndawi réew mi muy les honorables députés bu boobaa mën nañ ni jàll nañ ci beneen phase mais ba fi may waxee nii tey parti politique ay statut dafa war a dëppoo ak charte réew mi dafa war a dëppoo ak respecter constitution Dépôt, ak respecter souveraineté nationale dépôt, ak respecter li nga xamanteni moy démocratie mais ñu tek ci lenen modification bi loi de 89 indi ci loi de 81 dafa wax ni parti politique bu fekkente ni dafay troubler gravement ordre public la liberté yi conséquence bi sanction bi mooy mën nañ ko dissoudre mais ana kan moo mën a weddi au Sénégal diggante 2000 21 ak léegi ñaata yoon ngeen dégg ki jiite parti bi wala banqaasu parti bi woote wax ni génn leen taal leen yàq leen rey leen jël leen xaalis bi nekk seeni biir kër ñaata nit ñoo faatu ci ay manifestation